Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul allama abonné leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bés kolos bi yokk ñu tuuti sens la la la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 ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamed Ndaw Zakir ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di la tatagal waa Taysiroul Ousoul TV ñoo ñëw di la ziara di la ndokkeel waaye itam di la laaj cosaanu gàmmu gi donte kon xat na nga mosol ñu ci lenn ak itam sa relation ak ki nga xam ne moo waral ñu indi eh, ñu programme bi xew bañ def ko gàmmu fii ci Thiamène Ousmane eh, bisimilah al mukro alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Cheikh yaa ngi naan Cheikh Mouhamad Ndaw waaye seex gi mënoon nga ko dindi rek nga wax Mouhamad nda wala nga wax gi Guiyoulou Baye ñu ngi lay siyaare di siyaare waatee Sérérou Soul yëpp di nji lii de Cheikh Oustaz Alhaji sama xarit sama soppi ñu ngi koy siyaare bu baax. di sant yàlla cibis bis bii nga xam ne bañ koy sos yàlla rek a taxoon te ba léegi yàlla tax te loola mooy wéy ba léegi. bañ koy commencé xamuñ xoon ne dafay yegg si fii dañoo foogoon buñ ko defee benn yoon rek ñun foofu la yem waaye dëkk bi seen bëgg yàlla bëgg yéen Thiala Mouhamed bëgg Cheikhou Tidiane seen bëgg Baye Niass. moo tax ba léegi bis bii di su fekkoon ne jëmmi oustaz Alay Caam moo ko sosoon rek la konoon kerek ba mu fi bàyyi ko kerek la bis bii di taxaw waaye ba mu fi bàyyi ko ci la gën a màgg ci gannaawam la gën a rafet sax ci ba mu koy fekkee loolu kon jëfi jëfi yàlla la oustaz Alay Caam maa ngi xamante ak moom ak Thiès ci sama xarit bu ñuy wax sax Tidiane Gaye mu dëkk Leeraan Samb Cheikh Tidiane Gaye moom itam du ne mbokk ak deret moo ñu boole waaye Mawlaana Cheikh Islam Alaaji Ibrahima Niass mooy jël pël ba nekk Guinée bambara ba nekk Mali mm. naar ba nekk Mauritanie mu boole ko tubaab ba nekk Amérique mu boole leen ñu bokku ndee ak bay ci yàlla loolu mu ci lañ xamante waaye bu doon bokk ak deret ñun mën nañu dund ba dee te kenn du xam moromam kon yàlla tax ñu sos bis bii nii. ma fekk ko ci Cheikh Diagne Gaye Leeraan Samb bi ko fekkee macha allah muy nit ku dal ku sella ku am yar te bëgg Baye Niass munu ma lii de bëgg naa nga may ma ko ma ne ko heure boo ko bëggee rek ma may la ko munu ma nag lu bëgguma ko bokk man kenn dama ko bëgg yëpp samay bokk bokk ko ak ñoom ci la ma invité fii si Thiamène ñëw def fi benn guddi ba léegi si waa Thiamène jàpp guddi gi ba tey jii ñu ngi toog deret Mawlana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima da ñëw ci bis bi kon bis bi màgg na buñ ci amutoon lu dul dereti bàyyi ñëw ci dëkk bi rek doy nañu waxumala leneen la ci tegee loola bénéfice la ñu ngi leen nuyu di la siyaar asalaamaaleykum. waa kay Cheikh Ndaw ñun Cheikh lañ lay wax ndax sëriñ nga ci ñun ndax ñun itam ñu ngi góorgóorlu ci wàllu zikar te lool yaa ñu ci jiite yaa ñu ci jiitu kon dëgg-dëgg sëriñ nga ci ñun li nga wax ci Cheikh euh, Tidiane gay loolu luñ mën a seede la nit ku dal la ku bëgg ñëpp xam lu baax la euh, li nga wax nag ci mbokk ci deret maam Ibou Diouf mooy li muy wax xanaa xaarifine yi di leen ànd ak seen mbokki xaarifine yi ñooy seen mm-hmm. doomu baay mm-hmm. jëfee chariat moo neex Seydi Barham mm-hmm. mbokk ci deret mbokk ci yàllaa ko gën gaay zikar leen dëggaay dem ca pee ba gëm leen tel dëgg dëgg loolu moo tax tey serul usul jog kon nañ xam ne lii nii muy tele bi nga xam ne bëgg neen mu bokk ci tele yi nga xam ne nii euh, monde bi yëpp dañ koy suivre te ñaan leen ci yàlla euh, ndax ñoo xam ne nii ñooy zikarkatu pay bi ñoo fi dajee mm. wala boog zikar kenn si zikarkatu pay bi mu ngi fi mm. te bàyyi nee na zikarkatu pay dëgg-dëgg ñoom ñooy liggéeykat yi mm. kon dëgg-dëgg kooku bu ñaanee yàlla da koy def ñu ngi leen di ñaan ngeen abone waaye ngeen di partager di vue fexe ba mbir yi gën a avancé ndax loo gis rek si nii la commencé waa Taysiroul euh, TV Taysiroul Taysiroul Wousoul TV ñu ngi leen di ndokkeel yéen itam ci gàmmu gii ngeen xam ne ñëw ngeen 2016 lañ ko commencé yaakaar naa sëriñ bi wax na waaye xam nañ ci dara ndax man ak euh, Cheikh euh, Alhaaji Thiam ñoo doon dem ziyaare ji ko moom itam bëgg yàllaam tax mu ñëw sosal ñu lii kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla moom it guddal fanam boole ko ci comme ñi mu wax géwél a bàyyi ñu def ko muy premier tànneef comme niñ tànnee maam Ibou Diouf nga xam ne képp ku naan ci pay bi moom moo la roose waaye dëgg-dëgg moom itam mu bokk ci ñi nga xam ne gannaaw maam Ibou Diouf moom mooy taxaw yal na ko yàlla def te ma boole ñu ko ñun ñëpp Cheikh Wilane yow it ñu ngi lay ziar di la ndokkeel bu baax wa ma zalika alhamdulilah maa ngi leen di wax ne Taysiroul Wousoul TV yéen ñëpp nangeen ci abune c'est que daara la joo xam ne école la tante la bari na looy loo xam ne réer na la mm-hmm. booy déglu seen bi di abonné di sem bu yàggee yàlla dana la ko xamal ci seen bi ndax borom xam-xam moo fa nekk te li muy wax leer na xaw na yoon tegu na ci yoon koo xamante ne nii jëm jàngi école wéy la wala nga dem di jàngi feneen wéy la boo jàppee télé bii nii di ci déglu di ci abonné lépp loo waroon a jàng mën na la ko jàngal ci sa biir néeg te doo génn danga ko xam dana leer salaamaaleykum wa rahmatullah